asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu suñu naataango yi ak kilifa yi ngi ñu xam ne moom lañu àndal ak suñu honorable député yi di nuyu yéen waa presse bi di nuyu waa Sénégal yëpp di bal ñëpp àq di balu ñëpp àq ñi ñu fi dajee tey te kenn xàmmewut bi structure ak beneen structure benn principe rek moo ñu fi dajale muy principe d'équité principe de justice ak loo xam ni am na ci réew mi te ku yaakaarul ne ci nga bokk it ci nga ndaxte taxawaay bii ñu taxaw tey du tey lañ ko taxaw taxawaayu artu la taxawaayu artu la ak taxawaayu yëglu ndax kenn xalaatul ne ak li fi xew ci gannaaw ci juge Sabassy Faye ñu yegg ci ba ku nekk di laajte fu saaba si bokk ñu yegg ci ba li dal héros yëpp mu dal ñu te pourtant saaba si deful lu extraordinaire dafa rendre rekk justice wax droit rek la liir waaye dafa dafa wax lu fi tumranke li fi tumranke mooy dañoo yeggoon ba xalaat ni nekkatuñ ci état de droit dañoo demoon ba xalaat ni ci état wu dawal jàpp lañ nekk dañoo yeggoon ba xalaat ni ku musóoru bu wengee ñu jàpp la bu sa cravate bu yolamee ñu jàpp la te nag benn nit rek di ko décider ñu ni mooy clé de voûte des institutions mu jël institution bi di ko fénq ci sunu kaw notamment di ko fenq ci kaw Ousmane Sonko Ousmane Sonko amul lu mu dajul ci àdduna bu ñu nee mars 2021 wala février 2021 man leen amul ba mu nekkee di def liggéeyu député di def ay investigation di dénoncer ba léegi mayuñu ko jàmm may ñu ko jàmm ci biir liggéeyam mayuñu ko jàmm ci assemblée ga ko yàlla indi woon may ko jàmm ci njabootam mayuñu ko jàmm ci Ziguinchor ga mu dëkk ba def yoo xam ni sax c'est inélégant kenn dootu ko fi répété kooku nag suñu demee tey ba am loo xam ne xalaatoon nañ ko muy espoir ci justice ñu bëgg ci dellu si man de dama jàpp ni rek dama nekk ci position d'alerte et de veille waaye xalaatuma sax Cour suprême wax lu bokk ak li juge Samba si wax ndax du ñu weddi seen bopp du ñu seen weddi seen bopp te ku bëggul kenn yi bëgg sa bopp te droit dong la fi wax ñuy woote état de droit bi nga xam ni ci la ci la démocratie adressé wu parce que nag état de droit bu amul ñun ñëpp bu ñu yeboo tiit ci suñu bopp kon lii du problème mu benn instance du problème mu benn structure du problème mu benn coalition du problème mu benn pôle du problème mu benn front problème mu Sénégal la Sénégal moo war a nekk ci état de droit Sénégal la ñu war a waxe droit Sénégal la fi justice war a am ndax démocratie la ñu choisir dafa am ñu dëkkoon ci royaume ñun leen royaume yi fermé nañ kenn dëkkatul ci royaume parce que démocratie moo bëgg ay carte di fal ñu teg ay règle justice bi di àtte ci yoon di ko teg ci yoon loolu nag bu amatul amatuñu Sénégal gi nga xam ne mooy Sénégal bu idéal bi nga xam ne moom lañ doon rêvé loolu moo tax kenn warul la toog àppwul kuy politique àppwul ku dul politique ñu ngi saluer ñëpp ñi nga xam ne jóg nañ xam que ñu ngi gën a bare ñi ngi koy def ci tribune ñi ngi koy def ci waxtaan ñi ngi koy def ci xew yi sax dañ koy taasu léegi kon léegi dañu war a xam ni bu fekkee ne droit bi dañ koy wax au nom du peuple nañu xam ni peuple bi li nga xam ni mooy seen yaakaar di seen espoir benn nit moo ko cristalliser il s'appelle Ousmane Sonko je vous remercie